Juro, juro. moins 1. C'est la dernière séance de boxe. Nante yi yéen a ngi pare. dañu koy constaté indaale leen baraada kaas yi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Medina TV. Medina TV ñu ngi leen di ziar yéen comme d'habitude yéen moom ñun lu ñu nekk lu nekk rek ci Médina rek yéen a ngi si donc ñu ngi leen di gërëm aussi seen présence ak jàppale bi ngeen di jàppale le sport plus particulièrement ici à la Médina ñu leen di gërëm di leen sant di nuyu waa Médina yëpp di nuyu fukki penceeg ñaari comme ni ko mbër mi di waxee tout le temps di nuyu Ndakaaru nga xam ne tey Ndakaaru moo jóg le combat de Gris Bordeaux ñëpp xam ne ne c'est tout le temps un événement événement la boo xam ne waxuma Médina ñoo koy préparé mais àdduna yëpp koy préparé àdduna hmm? yëpp koy préparer donc ñun nag fii on est amuñu stress pour sunu lutteur déjà pour ñëpp xam ko amuñu benn stress li ñuy wax rek mooy dañuy waxaat en tout cas na ñëpp génn ñëpp ñëw jàpp si parce que la preuve boo gisee Médina c'est tellement animé que ñëpp ñu ngi ci combat bi ñuy woowaat autorités yi en tout cas ñu ngi remercier le maire Bamba Fall di remercier aussi euh, euh, Barthélémy Diaz le maire de Dakar nga xam ne ils nous ont ñu ngi xaar tamit yeneen autorités yi ñi nga xam ne ñoom ils sont nés à la Médina juddoo fi en l'occurrence Youssou Ndour qui est notre nga xam ne fii la juddoo yaroo fii dëkk fii xam fii et dañ leen woo parce que Cheikh Ba ak Seydou Gueye ñoom ñëpp autorité yi Cheikh Seck ñi nga xam ne tey c'est les décideurs dañu bokk ci Médina lu jeunesse bi di def lu nekk dañ ciy jàpp kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo euh, ma lay ndooy ah ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo Youssou Diall gis nañ ni mu ci taxawee ah mag Dieye ñoom ñëpp xam nga gis nañ ni ñu ci taxawee amaat ah ah Amath Diédhiou ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay ci mais nañ ci gën a jàpp parce que tey dañu soxla benn mobilisation boo xam ne ñun bëgg nañ yóbbu sax ba trente car wala cinquante car suñ ko amee ba pare am ay dix mille billets pourquoi pas parce que maintenant war na mun a génne loolu il faut pas que nit ñi aussi tam ñu croiser seen bras xam nga taxaw di seetaan autorités yi jóg nañ mais nañ gën a jóg ñii nga xam ne lim nañ leen nag ñu ay Cheikh Seck dinaa ko waxaat Youssou Ndour Waly Seck c'est des leaders yoo xam ne tey ràññee nañ leen biir Medina nañ ñëw ñu jàppale doomu Medina. xam ne ñu ñëpp ñoo jóg xam nga pour jàpp ci affaire bi dimanche ñu dem dellu si indi suñu ndam may gërëm nag supporters yi nga xam ne tey ñii c'est les infatigables ñoom ñëpp ñu ngi nii sama ginnaaw ku lim juum xam nga vraiment mënu ma wax sax ay tour mais xam naa ne que ay prince ak bon ñëpp ngi fi ah vraiment mënu ma lim mais xam naa ne taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne dañu bëgg dimanche bu ñuy dem xale yëpp am billet am t-shirt dem si jàmm ñibbis si jàmm indi suñu victoire parce que dañ ko war a dem jëli donc loolu il faut moom mu une mobilisation. Ah, foog mu am euh, si problème si yooyu la ñuy ñëw. parce si affaire billet yooyu la ñuy ñëw. pour nga leeral ko ñi lay seetaan ak fans yi ndax chaque jour dañuy gis day am xaw a am problème léegi xoolal moo ko na yi nga waxante ak ñoom affaire billet yi pour mu leer ak nan lay demee waaw c'est important affaire billet yi dinañ ci waxaat parce que combat bi dafa nekk combat boo xam ni ñu koy préparé léegi dafa yàgg a beaucoup dépensé on a beaucoup perdu mais yàlla nañ ko gañewaat mais billet yi dañuy leeral ñëpp que actuellement nii ñun amaguñu ay billets yi nga xam ne tey mun nañu sax am nañ tuuti kenn du ne amuñu dara parce que sincèrement euh, monsieur le maire am na lu mu def Euh, euh, Barthélemy Diaz yónnee nañu léegi léegi trois cent billets dama koy wax xam nga yónnee ñu dix cars le maire de Dakar jàppale ñu bu baax a baax xam nga loolu ba pare jo ba pare jox ñu jox ñu xaalis xam nga jox ñu xaalis bu bari wax dëgg yàlla jox ñu ay billets jox ñu dix cars loolu aussi ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm maajoor bi nga xam ne c'est un jeune qui nekk fi Médina def ci ay link jàpp si bu baax nekk booy bu baax nekk nit ku baax donc billets yi ñu ngi wax di woote en tout cas ku ñu mën a jàppale ci soutien pour billets yi ñu am billets yi parce que li ñu am ci car mat na car te loolu xajul Pikine loolu ñëpp ñëpp dañu war a dem ku nekk sol sa t-shirt yor sa billet xale yi ñëpp dañ leen war a jox billet te loolu la ñuy ñaan ñu koy ñaan autorités yi ñu ñëw jàppale ñu ak les bonnes volontés yi fi nekk pour que le jour du dimanche ñu mun ci génn. mais Taga est-ce que mën nañu euh, xam ndax jour combat bi ngeen di jox xale yi billet yi. wala leen ngeen teg kaar non cest wu xam nga ñun nag dañu koñ boo xam ne ñu organiser wu à chaque fois bu combat amee doo dégg coow doo dégg histoire doo dégg xuloo xale topp mag mag topp ki ci des noonu lañ koy doxalee ñi nga xam ne dañ leen war a jox seen ay billets ay xale lañu mais duñ ne ay xale yu tuuti parce que ñun aussi tam dañuy sécuriser xale yi na am ay magum jëm yu ñu jox ay billets ñu jiital xale yi ànd ak ñoom dem ba stade mais nañ jàpp ne que su ci gars yi jàppee ñi ñu woo nii maanaam maintenant ñëpp mun nañ génn dem stade te nañ am billet parce que loolu am na ossature boobu am na fi nit ñooñu am nañ fi te bëgg nañ Gris Bordeaux bëgg nañ Médina bëgg nañ ko soqaliwaat te dimanche lañ koy xaar suba nag au plus tard bëgg nañ fii au moins ñu am cinquante cars yoo xam ne mi ngi fii ak plus de dix mille billets ñëpp demandoo stade te ñu ngi ñaan autorités yi ñu jàppale ñu si loolu. si autorités yooyu ngay wax mun nañ jàpp ni Gris wéetul benn yoon si combat bi. non Gris musul wéet ci combat Gris à chaque fois buy bëre autorités yi nekk Médina en tout cas ay yu baax ñoo fi nekk dañ koy jàppale à chaque fois daf koy wax. wax fa dëgg yàlla dañ koy jàppale chaque combat amu ci benn autorité boo xam ne ku fi nekk mu commencé ko ci le maire Bamba Fall amul combat gris bu buy am te du si jàpp Cheikh Ba amul combat bu gris buy am te du jàpp Seydou Gueye la même chose ak ñeneen autorité yi on n'a pas ces problèmes là mais dañu bëgg ñeneen ñi nga xam tam dañu nekk ci suuf te génnuñu ñu génn xam nga vraiment suqali Médina parce que lii dafay tax jeunesse bi am na yeneen booy yu màgg di nekk ay ñu motiver leen booy caatu Médina mi ngi fi mi ngi màgg tey moom dafa war a nekk royukaay ci lii donc lii la war a gis pour am motivation su gisee ne que maintenant ñëpp jóg nañ moom ak ñoñam ak ñi muy àndal ñëpp dinañ dem nekki mbër wala ñu dem nekki sportif parce que ñun loolu lañ bëgg on veut médina smart booy yi branché sañse comme ni ko mbër bi waxee solu ba jekk amul arme amul xeex amul insolence amul lenn na ñëpp sañse sol yére yu weex taal ñu dem stade indi victoire si si si affaire sécurité bi la ñuy ñëw jaara xaama jox la. Euh, dañuy dañuy laajte rek si côté disposition sécuritaire ndax jël ngeen ci li nga xamante ne moom moo mat ndaxte xam ku ne xam na ne euh, bis boobu Ama Baldé ak Gris Bordeaux dañ ko bokk ak seen nawle yoo xamante ne ñëpp ay champion lañ gis nañ ne ko guy gi Ada Fass dañ ci laale te kaar yi day jóge Médina waaye duy jóge Fass te benn direction la ba arène nationale ndax dispositif sécuritaire bu mat jël ngeen fi may dugg loolu damay dem sax ba ci kaw loolu état lañ ciy woo mooy maanaam loolu du Médina ñoo ci war a jóg wala Pikine wala état maanaam ñu dimbali ñu ci sécurité bi parce que lamb ji du lamb bu ndaw y a six événements ou sept combats yoo xam ne yëpp c'est de grands combats te mbër bu ciy jóg rek mën nga yóbbu presque dix mille personnes comprendre donc dañuy ñaan sécurité xale yi dem si jàmm dellu si jàmm arme à terre ñu ngi koy ñaan suñu jeunesse bi yëpp ñu dem xam ne sport la que le meilleur mais ñun gëm nañ ne que dañuy indi ndam li loolu moo am te gëm nañ ko. mais Taga gis nañ ne combat Luis njaago hmm. ak Pokola Balde. Hmm. Euh, Luis Ndiago dafa jóge jàmm gën. Hmm. waa Pikine xaar leen foofu. est-ce que doo lancer benn appel au niveau de promoteur CNG. pour Gris Bordeaux buy ñëw. moo am sécurité ay supporteurs am dugg ñoom bu ñu euh, waa Pikine bu ñuy ñëw seen moo am sécurité seen supporter dugg mu bañ am ay xeex. parce que gisoon nañu ay violence bu doy waar. loolu li nga wax c'est important loolu sànq rek ñun si wax ñun en tout cas dinañ def le maximum pour sécuriser sunu mbër teg ko dans de très bonnes conditions. mais au niveau de pikin jëm stade. bugguñu fa coow maanaam dañu bëgg mbër mi ñëw dugg normalement kenn bañ ko indil benn problème su duggee sereinement ñëpp nekk si jàmm bu ñu duggee arbitre bu sifflé une minute dañu ñibbi si waat dañuy ñibbi si waat ci jàmm mu neex a neex mais sécurité bi jaara demal. ayca xaaral xaaral xaaral. Euh, suñu suñu dernière balaa ngi balaa ñuy jeexal yaa ngi ne euh, une minute ngeen a ñibbi si waat waaye gëw ma ne mën naa yombee noonu ndax ku ne xam na ne amaa Baldé dana Pikine ay toolu maamam la woon te am amoon combat boo xam ne da cee génn am ci loo xam ne da cee jóge te gëwuma ne dina ko mayaat Gris te tamit dégg nga li xamante ne waa Pikine wax nañ ko nee nañ Ama daf Gris dafa nekk fin de carrière te dañ koy yóbbu retraite non ñoom ñoo jàpp loolu nag waaw non ma ñun ku jaaxaluñu bëre jaaxaluñu c'est-à-dire que fii dafa am lu ñuy réeree mbir mhm. Gris Bordeaux bu muy nekk xale di bëre ñun dañ ko yar xam ko moom yëpp daf leen daan cest à wax bu ñaaw dañ ko jël teg ko fële te ñu wax ci carrière mbër bi dañ naan toog na 10 ans bëriwul mais en 10 ans boo ci bëre deux combats wala trois combats il faut pas nit ñi di gisee noonu Ama Baldé ak Gris Bordeaux c'est des champions c'est des lutteurs on le respecte mais bokkuñu sax catégorie bokkuñ sa catégorie tey nag mayante chance dafa am c'est normal Gris est passé par là ñu may ko chance ay Yékini ay Bombardier mu am lu mu ci am mais tey ñun ki ñuy bëreel jàpp ñu ne ko suñu rakk la de dañu jàpp ne ko suñu moromu mbër la dafay dem liggéey ñu dem liggéey dañ ko fay mu fay ñu ñaari góor ñoo jàkkaarloo bu jour boobaa nag di ngay xam qui sera le meilleur le jour là et espérons que c'est nous parce que ñun amul loo xam ne defuñ ko ci stade bi ñun rek ñooy bëre stade bi am guichet fermé ñun rek ñoo koy def ñun ñoo feesal stade de l'amitié ñoo bëre Modou Lo stade bi tëj ñoo bëre Balla Gaye yàggul stade bi tëj. loolu c'est le seul de Fass Gris Bordeaux moo ko am ak écurie nañu ko bëree bu Ama moom moom Pikine. xam nga lan lañ koy wax na jël Pikine ñu may ko mais moom buntu këram bu ñu fa bëree maa ko damay woo suñuy supporters. dama bëgg a xam fu mu ko teg dama nga li nga xamante moom moo mujjee am ci ci li nga xamante ne moom moo mujjee am ci làmb muy derby grand contre petit yaakaar naa ne am na loo xam ne Eumeu Sène def na ko Sa Thiès waaye ki nga xamante ne am mooy Ama Baldé ndax mën na yombalee loolu ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ndax man combat bi li ma ci marqué mooy Ama Baldé dafa am ci lu mu jógee te nee na si combat bi dafay confirmer que ne Ama Baldé bu wér boo xam ne dara jotu ko kenn mënu ko ci làmb waaw ñun léegi léegi ñun amul si mu jógee ñun tamit ama ci lu mu jógee ñun ci lañ jógee dafa am défaite ñun amoon défaite ñëw nañu daje moom daf ko soxla mais ñun ñoo ko gën a soxla ñun ñoo ko gën a soxla parce que ñun làmb ji tey fii ñu taxaw nii place bi ñu taxaw nii dépassé woon nañ ko bu yàgg heure bi dañ doon wax Gris Bordeaux roi des arènes c'est pas pour rien Gris Bordeaux mbër yëpp dañ ko respecté il faut pas que ñu jël affaire làmb rek mbëri dañ ko respecté mooy président des lutteurs parce que am na lu mu incarné ci làmb ji ba tax tey Gris mi ngi daanu xam nga gars dañ mi ngi daanu mais Gris heure bu daanoo cachet yokk seetlu leen loolu. Gris du bëre événement bu ndaw heure bu daanoo le lendemain ñu jox ko combat pourquoi wanewul yaafus benn mbër yebu ko kenn musuñ toroxal kenn musuñ dóor ay coups bañ tëdd ci suuf musul am te gëm naa ne jàmbaar jooju doomu Médina la fii ragal dëkku fi ay noble ñoo fi dëkk ay guerrier ñuy dem xare ko ñibbisiwaat ci jàmm ñun suñu mbër xam nañ ko. maa lu may tëjee mooy damay jox ana paay di. waaw gars yi maa ngi lay nuyu ah, ah. di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ah di leen wax ne suñu grand wax na lépp quoi grand taga wax na lépp ñun amultuñu dara la ñu wax dëgg yàlla lii mu wax fii loolu rek moo fi am dëgg la man président supporter wante réeréwu ma moom parce que lépp lu ñu dem jëli ak lépp lu ñu dox rek ñëw naa coordonné ko ak moom moo tax yaakaar naa su ma fi waxaatee rek ay répétition lay doon quoi waaw di ñaanal yàlla rek champion bi yàlla may ko ndam dimanche si xol bu sedd bi fii barke alxuraanu karim Gris Bordeaux moo fi njëkk a gaare 34 54 dem stade lépp képp ko def fii ci Gris Bordeaux gisee mm-hmm. dëgg la combat bi passe am nañ tuuti jafe-jafe parce que suñu jàppale moo xawoon demee woon noonu wante ku ñëw démb ci point de presse waxuma la open presse da point de mm-hmm. presse mm-hmm. ku gis lii démb sa xel war na mën a tey ci Gris Bordeaux dañuy waxante dëgg Ama Baldé nee na Pikine dëkk jour boobu du xam dina ne man ani waa ñun waa Ndakaaru pare nañ suba incha allah suba man maa leen ko wax pare yéen ñëpp ñëw leen fii ngeen xool suba ñun ñëpp dinañ dajaloo fii yëngal fii ba mu saf dimanche ñu dem yàlla may ñu dem ci bu sedd buy. waaw incha allah. waaw asalaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp ah, li ñu tax a jóg nag lenn kese la mooy le 30 Ama Baldé nañ ko seqal ñun ñaar nooy tëju ci digg géew bi lépp lu mu laaj. lépp lépp lépp lu mu naaj incha allahu dinañ ko joxe ba mu mat sëkk sëkk sëkk te nag Ama mi ngi yaakaar ni biir Pikine boobu moomu fa ëppale te bis bu ñu demee stade mu xam ne genn wàllu Pikine maa ko. Eh, ama nee na Ama nee na Ama Euh, Coriace. Mhm. Maodo. Giri Bordeaux bu ñëwee entraînement Colobane ñoom ñëpp sëgg mu daan leen. ama ama ama ba mu ñëwee ci làmb yàggul loolu su koy wax su koy wax waxu daanu si sara ndax ku xam Giri Bordeaux. am ko démb Giri ba muy jóg booba ama jógagul Giri nag am na lenn li nga xamante ne fi ñu toll nii sunu xol fees na te li ñu soxla. mooy ndam. te yow mii. xam nga ni ñu danoo soxla ndam te ndam ni lum nu jaral rek moom lum ko jaral na nu lu ko waaw. mais waa Pikine dañ ne waa Medina duñ dugg di leen sax. waxu yàqu la waaw ndax euh, am na fi bis bu ne bis bi mën naa ni moo gën a tuuti ci bis yi ñu am am na Modou Lo am nañ fi Bombardier am nañ fi Baboy takusaan bu nekk am nañ ko Pikine nag. a ah, yaakaar nañ ne ñun Médina duñu ay ragal ñun mënewuñu wax waaye bis bu ñu yeggee ca buntu ba dinañu xam ne lépp dëgg